bi ko waajuram ombee baayam di Abdoulaye yëg ne soxnaam nekk na jigéen mu ne dafay dem àll ngir dem foraatu ji bu doomam ganee àddina mu am lu mu ko teral mu tukki feebar dab ko mu daldi faatu bi muy faatu boobu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaari weer la am ci biir yaayam yàlla dogal suñu yaay amina bi mu yëgee xibaar bi mu ànd ak sagoom ànd ak sanfuraam jaxasoowul de déedéet tiitul de déedéet woy fa ma jëm woy nangam déedéet dafa toog tiit ci yàlla am na yàlla bi ko joxoon abdullah waaw yàlla boobu mu ngi fi taxawul dina ko sàmm ba keroog lu yàlla dogal de yàlla dogal bi mu demee ba juróom-ñeenti weer yi mat laata yonent bi di àddina guddi bu nekk rek am ay jigéen ci aljana ñuy def délégation dal ñëw ci moom Amina ne ko ndokkale ndokkale ndokkale jaajëf jaajëf jaajëf mu ne leen waaw lan moo xew mu ne dañoo ñëw di la bégal ne waaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay ki ko ëmb ñooñu dem benn fan ñaari fan beneen jigéen ñëw nee na mooy yaay Mariama ànd ak ay jigéen yu taaru mu ne leen yéen fu ngeen jóge mu ne ñu àjjana mu ne ko ah lu waral seen yoon mu ne ko dañoo ñëw di la ndokkale yëgal la ne waaw muhammadul mustafa yow yaay ki ko ëmb ñooñu dem ñu jékki-jékki toog asiyatu bintu mazahim di soxnaay firawna ba woon moom it def délégation ak ay jigéen ñëw ci moom ne ko ndokkale ndokkale mu ne leen lu xew mu ne leen ñu ne ko dañoo ñëw di la ndokkale ñi ay jigéenu aljana lañ dañoo ñëw di la bégal ne xayru xalqillah yoo yaay ki ko meññi yoo yaay wéjuram waaw ci yow lay bawoo mu ne leen jërë ngeen jëf yàlla dogal bi mu demee ba sentir ne war na am doom boobu ëmb bi yëpp juróom-ñeenti weer yi musul yëg dara dafay toog di jaaxle rek waaye yonent bi kenn du ko ëmb ngay jafte déedéet yonent bi kenn du ko ëmb di sonn kenn du ko ëmb di tott kenn du ko ëmb di jaaxle nooy wasine ndax césarienne la wala accouchement normal la déedéet yonent bi kenn du du jaar foofale bi mu demee waaw ci weeru gàmmu fukkeelu fan ak benn mu yëg ne yaramam mi ngi jaxasoo yaramam mi ngi jaxasoo waaw mu daldi woote màkka ah ne am na lu ma yëg de boobu waa màkka am na benn jigéen bu ñu naan ummu shafa wala shafa u mooy yaayu abdourahman bun awf ah saxaaba yëpp moo ci wëppoon alal moo doon rewle jigéenu màkka yi mu ne ko soxna si man daal li may yëg daal jaaxal na ma soxna si ne ko waaw sa waxtu soreetul waaye nag xam naa ne du nekk ci bëccëg bi amaan na guddi gi lay doon xoolal lii mooy xam-xam jamono yooyu échographie amul gynéco yi amul test yi amul analyse yi amul daf ko xool rek ne ko ankay ah, sa waxtu soreetul waaye nag xam naa du nekk ci journée bi boo matul guddi gi lay doon wala fajar mu dem jël ay matuwaayam boobu màkka bu jigéen di rewle dafa am matériel yi muy jël comme ni ko jigéenu jamono di jëlee ay ciseaux ay yooyu noonu ay gants ñoom nag dañoo amoon benn aada ay leket ay sër ay pepp yuñ lay tuur ay witte nag yooyu mu jël matuwaayam yépp xam ne ci màkka am na jigéen boo xam ne fii ak suba war na am doom waruñ ko bett lii mooy responsabilité moo tax mbokk yi nañu bàyyi xel sage-femme liggéey bu dangereux la ci boo ko foog boo ko caaxaanee waaye liggéey bu noobul la ndax ku juddu waliw buur yàlla ak fonctionnaire ak ak ku mun ci doon ci loxo sage lay jaar yaay njëkk a gis awraam yaay njëkk a gis kanamam am na koy rewle ndeki ëllëg mooy nekk xut bu zamaan yow munoo ko rewle ba pare ëllëg di torox déedéet munul am munoo dimbale yaayam ba mu ñëw àddina ngay sonn loolu munul am ummu shafaa moo liggéeyal doomam abdourahman alal bi mu amoon mooy sonn bi mu sonnoon bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gane àddina mu jël ay matuwaayam kon ndeke ndey day liggéeyal doomam yaay dafay sonn ngir doomam mën a tekki amul benn góor yàlla lu dul yaayam dafa xëy soxna jaara buso moom moo xëy xaadimu rasuul ah gontu loolu moo sos yoonu murit soxna su jànq dafa xëy Maulana Cheikh Ibrahim Gontu waaw loolu moo indi faydu bi suñu yaay soxna ah Fawadu Wele dafa xëy Seydi Hadji Malick Sy gontu loolu moo indi nasir xaq bil xaqi wal haadi ila siratakal mustaqim kon soxna soosu moo xëyoon moo tax doomam amu barke bi ñu demee ba fajar jot moom mu ngi préparé wu ndeke yaay Amina dugg na ci wurmbal bi simlaay saa rek yenent bi gane àddina kenn fekkewu ko kurul yaayam kenn rewlewu ko moom ci boppam am na jigéen yu ma am na jigéen yu am lii hmm? am na jigéen yoo xam ne bu ñu waree am doom boo yéexee tuuti rek ñu wasin sa kanam loolu am na hmm? li koy maye nag mooy jigéen saa su ëmbee nay faral di wirdu yaa karimu deux jigéen bu ëmbee buy ëm buy wirdu yaa daf koy yombalal matu hmm? boroom këram bu jàngee na jël fooy bu weex bindi kullun fii falakin ah mooy ci yaasin moom dafa jàkkaarloo foo ko jël rek loolu lay doon nga bind ko mu taxaw nga bind ko mu tëdd ñu jàkkarloo nga jox ko sa soxna suba su ne mu koy xool di ko xool boromam du sonn ci matu te lu mu jur dina barke ah na ngeen ci bàyyi xel loolu am na yaay Amina ci na noonu ci noonu la ganee ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ganee àddina umu shafaawu ñëw ne a ah, gis ne jëmm ji kat ñëw na jamono liñ ko war a defal ci aada defalaguñ ko ko mu daal di jël aadam yooyu bu ko defal bi muy jël lekket ne da koy dëpp yonent bi mooy leket boobu nga xam ne def na téeméeri at waa Makka yëpp dëpp nañ leen ko leket bi ne na tàcc xar sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi lu muy wane kii du nitu bidaa waruñ ko defal mbiru bidaa mu daal di jël yooyu noonu daf koy tegal déedéet mu daal di gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa téye loxoom sex ko di tudd kalimatu shahada mu jël ko ne da koy sang mu gis ne kii dafa set tilimul yemuñ ci sax dañ ko parfone gët baa ngi neex lool yonent bi xeet bu neex boobu moo ko topp ba biir bàmmeelam moo tax képp ku yàlla may aynul basira wallahi boo ne tël ci bërëbam foog nga yëg loo xam ne sa bopp mu soo ko yëg ci àddina sa xol bi dina daw daw boo xam ne danga naan waaw lii lan la bërëb ba di nga fay yëg xeet boo xam ne du xeetu cuuraay du xeetu uut du xeetu parfum xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa la yàlla bu leen ëmp yaa ñi demagul makka yàlla nañ dem ñi bëgg a umra yàlla nañu dem ñi bëgg a xaj yàlla nañu dem yàlla na leen yàlla def ay alaaji ak ay haja yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abonné leen ci seen chaîne malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi